koy préparé ah man mhm, ci sama moon moon maa ngi koy préparé ah. xam naa dafa mel ni ni mu mel ren nag euh, wuute na ak ni mu meloon daaw ah. ci décoration bi de comme niñ ko décoré rek yooyu noonu. Mhm. dafa rafet ah vraiment bi moom c'est la première fois Ziguinchor doo xama lii quoi lii ñu def ni mais gis naa dëkk bi solaire ñu fi def ay lampes solaires yu bees. yo xamne goudi mom ma sha allah dekk bi day leer ma ngi gërem nak autorité dekk bi quoi parce que li yëpp ñoom la Seydou. la jógee ñëwoon fi di xol place bi nu mu mel bon rafet na ñëwoon seet sama papa pour préparer fête euh, fin d'année bis ah ñu koy préparer ak fam bi ak sama papa ak sama ñom bàjjen sama rakku papa yi ma fekk sama bàjjen yi ñun ñëpp ñu koy préparer ñu ngi koy préparer. vraiment nice non? sécurité j'habite juste juste derrière donc très souvent la nuit quand nous n'avons rien à faire c'est ici qu'on gagne d'abord du temps quand on se réunit tous ensemble après on sort ensemble avec les poteaux. Moi <laughs> je ne dis pas grand chose hein, parce que bon pour moi l'essentiel c'est d'être en famille et puis bon j'ai quitté plus de 450 km pour être là donc il suffit juste que je sois avec la famille ça va très bien. Bon, pas grand chose, hein, parce que après tout, à l'intérieur de la ville, ça va très bien. Il y la ville a été bien décorée. Nous, nous habitons dans la ville, c'est bien. Mais ce qui manque d'éclairage, c'est au niveau du rond-point. On voit juste quelques décors, mais il y a un manque d'éclairage. Donc pourquoi pas ne pas accentuer le travail sur les éclairages au lieu de faire des décors Euh, boo xoolee Ziguinchor naka jekk nag yu fi yu mel nii bariwu fi eh, mais léegi quand même mu ngi fi bëre boo jëlee place Aline Sitoé Diatta fële nga jël rond point bi ak yeneen place yoo xam ne nit ñi mën nañu doxantu fa di fa noppale quoi doon noppalukaay quoi waaw. ah fête bi moom fête bi moom fête bi moom comme maa ngi koy waajal comme ni mu ko naa waajalee rek waaw ni mu ko naa waajalee rek waaw. aw alhamdulilah alhamdulilah. Euh, ça fait presque deux à trois ans quand même ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi def constat bi ni quand même mairie mu ngi def effort di décorer dëkk bi chaque fois 31 euh, décembre bi waaj a jot. mais 31 avant 31 tamit dëkk bi da nga dëkk bi day set mais bëgg nañ tamit 31 décembre bu rombee tamit dëkk bi set noonu. les internationaux ak booy yi nekk fii moo tax moom lañ ñëwoon setaan si quoi match bi après fii comme ville bi bi la te bi dañ koy décorer dañ koy defar ñu ñëwoon fi xam nga pour doxantu pour xool quoi. waaw pour jël air parce que tay mom kontaan nañ suñu ville mom fan yi wax deug yalla waaw gars taxaw fi da ngay gis ne gaay ñi ngi taxaw di jël ay photo xam nga dafa rafet quoi vraiment. wa en fait fête bi nu ma koy préparé comme ñeba ah, en famille 31 décembre da ngay gis gaay dañuy joggé fu nekk ñew famille bi ñew ñu feete ko ensemble xam nga. bon ñi jënd ay cadeau xam nga am ñi mo wara jox cadeau ma jënd na ko tek waaw di ko fas yéene joxe quoi passé ko ak suma gars itam waa. parce que am na ñu fi nekkoon daaw ren nekkuñu fi ñun yàlla bu ñu mayee tey ñu fekkee ko ba ci heure bi war nañ koo mën a sant à part ça moom amuñu dara leneen luñ ciy yokk. wàllu préparation sol bi fekk na ñun ñëpp ñu pare ko ba pare parce que décembre bi fête yi ñu muy tombee day fekk weer bi deewagul kon boo ko bëggee préparer comme ni nga ko waree préparer. soo fayee par exemple le 2 3 nga préparé ko su ko defee balaa 25 wala 31 décembre tu n'as pas de problème financièrement. dëkk bi neex na bëri na jàmm activité yi pro tuuti daal waaw. lamp yi waaw jeu de lumière yi Ziguinchor leer na daal ñu ngi sant yàlla bu baax.